ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mbokk jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala mooy bind lu ko soob ak num ko soobe ak kañ la ko soob lum bind lu ne am na lum ci jublu lum bind lu ne am na xeeti xarañteef ak xeeti jàngat yu xóot yu nekk ci biir bindeefam yi subhaanahu wa taala mu bokk nag ci li gën a xóot te gën a doy waar bind gi nga xam ne da koo bind ay mbir yoo xam ne lenn lu ne da koy bind bind safaan ba mu ne ca wet ga bind lëndam bind leer mu ne ca wet ga bind guddi bind bëccëg mu ne ca wet ga bind góor bind jigéen mu ne ca wet ga bind wér gi yaram bind feebar mu ne ca wet ga bind am alal ak woomal bind ak ñàkk mu ne ca wet ga bind lu ñuul bind lu weex bind kattan bind néew kattan bind lu gudd bind lu gàtt bind aw yiw bind safaan ba bind aw tàngoor bind ab sedd bind ak yomb bind ak jafe bind ak mbëggeel bind ak mbañeel bind ngëm yàlla bind kéefër bind sunna bind biddaa bind topp yàlla bind mooy yàlla bind xam-xam bind réer bind dund bind dee bind àdduna bind àllaaxira mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala amul benn werante ci ne lii mu bind ak ni mu ko xeetale nga xam ne boo ko toppoo noonu di ko lim lenn lu nekk akub safaanam boo watul mën nga fee bañ a jóg ba tàkkusaan jot bindiin woo wii day dug neen du yëfi caaxaan itam dafa am mbir yu xóot yum ci jublu yoo xam ne jaam bi nekk ab jullit jaadu na léeg-léeg muy taxaw di ko seetlu lan la ci mën a jëre moom ci ay njariñ ci xeeti bindiin yooyu yi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala bind na ko ci coobareem ak ci kàttanam ak ci xarañam subhanahu wa taala suñ ci doon jàngat rek tuuti lu néew danañ gis ne benn bindiin yooyu ku koy settantal da nga ci jële kàttanuk sunu borom tabaraka wa taala ci ne lu ko soob lu ne bu ko bëggee bind mën na ko bind ca nam ko neexe da nga ci jële it ne lu mu def subhaanahu wa taala lu nekk am na njariñ lu ca nekk ñaareel mooy jaadu na jaam yi xam ne lum bind lu nekk bind ab safaanam mu nekk ca wet ga bokk na ca lam ca jublu mooy safaan bu ne da koy natt ci ab safaanam safaan bu ne nattukaay lay doon ca safaan ba dañuy wax ne wa bi diddiha tatamayazu l ashyaau ci ab safaanam ci la ñuy xame mbir ma bu dul woon lëndëm kenn du xam importance bi leer am bu dul woon feebar kenn du xam importance bi nga xam ne wér-gi-yaram am na ko bu dul woon réer nit ñu réer nekk ci kaw suuf di jëfandikoo seenug réer kenn du xam importance bi nga xam ne xam-xam am na ko bu dul woon kéefar ak biddaa ak mooy yàlla kenn du xam mukk solo si nga xam ne gëm yàlla ak jàpp ci sunna ak topp yàlla am na ko kon safaan bu nekk day fésal lam jàkkaar lool waaye sunu borom tabaraka wa taala da koy nattu ca loola itam yow mi nga xam ne dafa am melokaan wu mu teg ci yow da lay nattu ca ka ca des yow mi ñàkk da lay xool ba xam nooy jëflanteeg ñi am yow mi am mu xool la ba xam nooy jëflanteeg ñi ñàkk yow mi wér nooy jëflante ak ñi feebar loolu lépp ab nattu la boo xam ne kenn ku ci ne mën ngaa am tuyaaba ci sa moroom waaye mën ngaa jële bàkkaar itam ci ci sa moroom moo tax mu ne wa nabluukum bi charri wal xayri fitna dama leen di nattu ci jàmm akub safaanam su ko defee loola ëllëg ngeen delsi ci nun kenn ku nekk ñu fay ko lu mu doon jëf ñetteel ba borom bi tabaraka wa taala daf leen a nattu dafa bind bindeef yooyu ngir jullit yi wala nit ñi ñi mën a sant sunu borom tabaraka wa taala saa bu la joxe wenn melokaan wala mu teg ci yow lenn soo xoolee gis ne am na genn wet goo xam ne yaa ko gën a matle ka ca des loolu buntub sant yàlla dafa daal di war a ubbiku buntub sant yàlla dafa daal di war a ubbiku ñeenteel ba bokk na ci mooy ñu yërëmante ak di mottilente ak di dimbalante ci lu baax ndax ki am kàttan ku néew kàttan ne ci wetam ki am ba giijal am ku ñàkk ku dend ak moom ku amut lu mu dunde dimbalante bu baax a baax mën naa am foofu ngir wut tuyaaba bokk na ci it mooy xeetale googi mu xeetale mbir yi ak warale gi mu ko warale nit ñi mën a dund dund boo xam ne bu normal la maanaam mën a organiser seenu dund ndax kat bu ñu amoon guddi gu continuer rek wala bëccëg bu continuer rek kon dund gi dana jafe waaye xeetale gi mu ko xeetale tax na nga mën a teg programme boo xam ne lii bëccëg a ko moom lii guddee ko moom moo tax sunu borom tabaraka wa taala yii ma tudd yépp àdduna ji ci biir alquranul karim wax na ne wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni laallakum tadakkaruun nee na lu ne bind naa ca ñaar lenn ak lu jàkkaarloog moom lenn lu ne bind na ko bind ab safaanam lu tax mu ne laallakum tadakkaruun ngir fu ngeen toll fu nekk man di fàttaliku seen borom tabaraka wa taala di fàttaliku kàttanam ak man-manam waxaat na ne subhaana alladi xalaqa al azwaaja kullaha yéem nañ sellaay ak màggaayu ki nga xam ne moo bind al azwaaj muy safaan ya mimma tumbitul ard wa min anfusikum ci li nga xam ne day sax ci suuf si noonu la amee ay safaan noonu la amee ay peer waaye yéen ci seen boppit yéen doomu aadama noonu ngeen amee loolu am góor am jigéen wa mimma la yaalamuun ak loo xam ne sax xamu leen ko kon li yàlla bind te kenn xamul nu mu toll mu nekk ay safaan bari na lool borom bi tabaraka wa taala teg ci ne qul araaytum in jaala allahu alaykum alleyla sarmadan ila yowmi alqiyamati man ilahun gayru allah yatikum bi diya su fekkoon ne borom bi tabaraka wa taala daa def guddi mu continuer rek bëccëg amul nee na kon kan moo leen di andil ak leer man ilahun gayru allahi yatikum bi diya ana fu ngeen di jële jeneen yàlla yoo xam ne moo mën a indi ab jant buy fenk boo xam ne su fenki àdduna bépp àndandoo leer nit ñi mën a nekk ci seeni activité ak seeni yëngatu suñ xoolee di gis kon defe naa ne jëreen yàlla ñu ko mën a indi amul bu jant soo jant bi soo ñëpp nekk ci lëndam su ko defee kenn ku nekk mën a delluwaat ca beneen programme moo tax mu teg na afala tasmawoon moo ndax bu leen dégg mu teg ci ne afa qul araaytum in jaala allahu aleykum nahaara sarmadan ila yowm alqiyaama su fekkoon ne yàlla dafa jël bëccëg mu nekk faw ba yowm alqiyaama guddi amut nee na man ilahun gayru llahi yatikum bi leylin taskunuuna fii ana jeneen yàlla ju leen mën a indil guddi goo xam ne ci ngeen di mën a demee tëri ci ngeen di mën a dem ca seeni néeg tëri afala tubsiroon moo xanaa du ngeen gis kon yàlla mi ngi lay leeralal foofu lim jagoo nga xam ne amut lenn lu man loolu indi bëccëg ak indi guddi moo ko jagoo su bëccëg bi nekkoon bëccëg bu continué amul yàlla ju la mën a indil guddi amul meneen mbindeef it mu la ko mën a indil su guddi gi continué woon amul ku la mën a indil bëccëg te lenn lu ci nekk nag njariñam jarut nit taxaw naan la bëccëg bi lii lay jariñ wala guddi gi lii lay jariñ kenn ku ne xam nga ci sa dund ñaari situation yooyu lan lay firi moo tax bindee fi sunu borom tabaraka wa taala dañ ci sukkandiku soo settantalee li yàlla bind ci ngay sukkandikoo xam ne moom dong mooy yàlla xam ne moom dong moo yeyoo ñi di ko jaamu moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu limee lu bari ci lim bind bi mu noppee daf ne haada xalqullah lii mooy bindee fi yàlla yàlla day moom lii la bind fa aruni maada xalaqa alladina min duuni wan leen ma ñeneen ñi ci des nga xam ne yéen a ngi leen di tëkkaleeg yàlla wan leen ma ñoom lan lañ bind lan lañu bind dara nee na ñi ñuy bokkaale ñépp suñ leen dajaloon di leen bindloo wenn weñ wuy naaw mënuñu ko dañ cay lot kon bind sunu borom tabaraka wa taala moo ko jagoo moo tax mu ne bali zaalimuuna fi dalaalin mubiin bokkaale kat ya ak tooñ kat ya day ñu ngi ci ak réer goo xam ne gu bir la ci biir maanaam moomu al imam muslim dafa jële ci abu hurayra radiallahu taala anhu mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum su ngeen di xool ñi ngeen di dundal nee na foo toll deel xool ki la féete suuf deel xool ki la féete suuf waaye bul xool mukk ki la féete kaw foo toll fu nekk xool ki la féete suuf mooy lan mooy foo toll fu ne ak sa situation nu mu mën a mel am na koo xam ne yaa ko tane kon deel xool ñi nga tane yow te bul xool ñi la tane lu muy jariñ nee na fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi aleykum nee na loolu mooy tax xéewal yi leen yàlla defal ngir bañ koo xeeb ku ne am na xéewal yu la yàlla defal yoo xam ne boo ko seetantalee da nga naan man lii rek man man dong la ko yàlla defal ci àdduna waaye bu dee da ngaa toog di xool ah diw di moom ëppale nangam te fekk yow xamoo li nga ko ëppale yow da ngay daal di mujj xéewal gi la yàlla defal nga fàtte ko kon yow miy jàmbat ak ñàkk xoolal ki nga xam ne daa boole ñàkk ba noppi mënut a liggéey faf amaana mënut a dox wala mënut a gis amuti tànk amuti loxo wala sax par amutum xel te loolu lépp a ngi fi kon su boobaa nga sant yàlla yow miy jàmbat feebar xoolal kii fi nekkoon bëkk démb yor wér gi yaramam tey mu xëy nekk ca bàmmeel yi nekk ca armeel yi yow nga nekk ci kaw suuf yow miy jàmbat ay njàqare parce que da ngaa perte alal da nga doon commerce perte wala da nga doon liggéey wala ngay bay wala ngay napp ba mu yàgg dara doxatul xoola ki boole loolu ba àggal yàlla na toog lu tal ni kéefër wala mu nattoo ko nuur ci ay mooy yàlla wala mu nattoo ko réer ci ay biddaa gu dégg bëccëg mu nekk ci yow loo ñàkk-ñàkk te lu sa poos woyof woyof sunu borom tabaraka wa taala géndi la nga jaar ci siraatul mustaqim xam ne mooy li ëpp solo ci àdduna kon kooku da nga sant sa borom tabaraka wa taala borom bi nee na qul inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama ñi perte fii ci àdduna du mooy ku perte ci commerce wala ca mbay ma wala ca napp ga wala ca càmm ga waaye mooy ñan mooy ñi nga xam ne ëllëg yowma alqiyaam dañoo perte seen bopp maanaam seen i jëm ñàkk nañ leen ndax dañoo dem sawar wala yaasu billah ñàkk nañ itam seen i àndandoo ak seen i bokk ndax bokkuñu fuñ jëm borom bi nee na ala dalika huwa alxusraanu almubin loolu mooy perte dëgg dëgg dëgg nag kon mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala lépp loo xam ne yaa ngi ci teg say bët di dox di ko gis xamal ne am na lum la cay jàngal njàng moom yi jarul dellu ci ay téere xool gi di gis rek am na lum lay jox ki nga dajeel di dox mu yor bant wala càkkaaba di ca dox jox la ñaari tànk ngay dox yow am na lum lay jàngal ki nga dajeel yow mu yor càkkaaba bi di dox waaye yaa ngi ak say bët di dem daje koo xam ne balaa dem day yor bant nit jàpp ca bant ba di ko wommat am na lum lay jàngal foofu ki yor bant bi ñu di ko wommat am ku tëdd ca lal ba mënta wàcc am na luñ koy jàngal kon amut lu tuuti wala lu rëy loo xam ne da nga dajeeg moom fii ci kaw suuf te amut leçon boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala da la koo jox ba noppi jox la xel ngir nga jëfandikoo ko ndax nga mën a jariñu ci yooyu yi ngay dajeel allahuma inna nasaluka bismika alazim alazam alladi ida ducita bihi ajabt wa ida suilta bihi aatayt wa bi asmaika alxusna kulliha ma calimna minha wa ma lam naclam an tastajiba dacwatina wa tuxaqiqa ragabatina وتقضي حاجاتنا وتفرج كرباتنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح اهلنا وذرياتنا اللهم اطل اعمارنا على طاعتك واحسن عاقبتنا وارحمنا برحمتك الواسعه رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam